merci encore une fois de nous rester fidèles mbette lay doon saa su nekk ñu ñëwaat encore une fois comme tous les jours du lundi au vendredi 12 minutes chrono tey ñuy euh, dalal Ibrahima Diallo njiitalu mouvement bi ñu duppee MCD di mouvement euh, de la conférence pour le développement mu nekk mouvement bu am solo boo xamante ne ñu ngi foofee euh, donc dans la région de Kaffrine mbette la dalal la tey suñu plateau 12 minutes chrono. waaw asalaamaaleykum yi. di am bu baax nag ñëw fii tey ci Leral TV. Hmm. Eh, en tant que euh, président du mouvement de la convergence pour le développement mais également nekk membre de PASTEF. Eh, dans commune de Kër Mbouki ex-Pastef comme dañ koy faral di ko waxee. mais est-ce que yéen amatoo leen parti politique puisque parce que également comme que dissoudre nañ parti bi ñu on a bi ñu dissoudre parti bi léegi di wax ex-Pastef parce que à chaque fois dañuy conforme avec la loi dañuy bëgg à chaque fois su ñuy def mu def jëf xamante ne voilà day conformité avec la loi. alors est-ce que doo leen beneen beneen beneen parti politique est-ce que doo wut beneen euh, maanaam beneen beneen beneen feneen foo xamante ne mën ngeen fa dem ci lu jëm ci wàllu politique puisque le parti n'existe plus. waaw mais le parti n'existe plus mais duñu traité nekk ci langue politique bi parce que en matière de politique dafa am différents types de partisans yi première chose bi d'abord euh, c'est dans un parti politique mun a créer un parti et je que jamono ñu nekk nii parce que il est dans une coalition de partis politiques ñu tuddee ko coalition Diomaye président. d' accord dafa am lu am solo boo xamante ne c' que parfois dama koy poser la question pourquoi cette ruée dans cette idéologie euh, politique bi nga xamante ne bu ñu xoolee c' est euh, né vers les années 2014. Hmm. pourquoi vous en tant que jeune cette ruée ci li nga xamante moom mooy jëm ci idéologie boobu cette euh, nu mu tuddati maanaam li ñuy wax. Euh, projet bi. pourquoi selon vous hmm. que en fait le projet ça consiste quoi exactement am lan mooy projet bi lan ngeen ñu mën a teg loo jàpp ne lii moo tax ndaw ñi particulièrement yow Diallo nga dawal moom mooy euh, bi nga xamante ne moom lay prôné. et selon vous l'idéologie c'est quoi. parce que dañuy xool depuis Sénégal ba muy indépendance de léegi dafa benn type politique bi nga xamante moom moo fi nekk. ti politique moom boobu mooy ban mooy politique boo xamante tey jii nit ñi dañuy jàpp ne voilà euh, comme un métier téye politique comme un métier téye politique boo xamante ne tey dañuy jàpp ne tey ku bëgg a tekki rek day dugg ci politique maanaam sans idéologie mais sans entraînement ah mais il y avait il y avait des idéologies <laughs> euh, socialistes il y avait des idéologies démocratiques entre ouais, autres. waaw ouais. ces idéologies là sont des idéologies yoo xamante ne peut-être euh, dañ ko importé voilà mm. c'est non dañ ko importé mm. parce que c'est au niveau international parce que boo xoolee depuis 1960 ba léegi li ci bëri lu dañ ko importé au ko fii donc conforme pas peut-être avec la réalité de la société sénégalaise benn ñaareel bi mu doon benn type politique boo xamante ne politique bu classique la su ma nee politique bu classique mooy politique boo xamante ne tey man damay jàpp ne tey mun naa dugg ci politique ngir tekki ma dem dugg ci politique. damay jàpp ne tey su may dugg ci politique nekkul intérêt général moom ma dugg ci politique mais pour li may am ci politique. parce que ñëw naan loolu yëpp dëj na ñun lu ñuy dugg ci politique mooy lii c'est c'est le projet de PASTEF mooy li doxal Sénégal mooy c'est l'intérêt général jàpp ne tey le projet de PASTEF mooy lan tey mooy li ñëpp bokk ñëpp jot ci mooy li ñëpp bokk ñëpp jot ci. mooy ñu revendiquer tey li nga xamante ne moom la le souverainisme c'est-à-dire la souveraineté étatique. Hmm. tey ñu moom suñ bopp suñu économie ñu moom ko. Hmm. suñu culture ñu moom ko parce que jàpp nañ ne lépp loo xamante ne ñu ngi koy jëfandikoo fii c'est ça nous hmm. suñu culture ñu moom ko suñu économie ñu moom ko mais également suñu état ñu moom ko. d'accord loolu lu am solo la ci li nga xamante moom moo jëm ci li ni mel mais est-ce que loolu mën ngeen ko def avec. les anciens du régime bu fekkee ne a dàqal en tout cas régime bi fi pourquoi cette collaboration avec le régime quand je parle de collaboration je parle euh, du parti socialiste je parle aujourd'hui de Khalifa Ababacar Sall bi nga parti socialiste la bokkoon mm-hmm. c'est un socialiste aguerri et affirmé mm-hmm. pourquoi ce compagnonnage avec Khalifa Sall même si on sait que divorce bi am na seen la le projet de PASTEF du les incarné c'est-à-dire y a des personnes yi nga xamante ne peut-être ñoom ñoo incarné le projet mais projet bi du nit ñi en tant que tel c'est-à-dire boo jógee fale ñëw dugg ci projet bi boo conformer peut-être avec les déterminants les conditions du projet mun nga bokk c'est-à-dire maanaam conditions yi ñoo am importance parce que projet bi dañ lay condition dañ lay par exemple soo ñëwee projet bi lii ak lii la wax donc da ngay tëggu ci lii ak lii condition ou intérêt non pas intérêt mais sont des conditions yi nga xam moom lay projet bi dina tëkkal d'accord loolu am na solo hmm. beneen bi mooy taxawu Sénégal ak PASTEF aujourd'hui le divorce est consommé est-ce que jàpp ngeen ne bu ñu demee deuxième tour xëy na élection présidentielle on ne sait pas kañ lay doon exactement puisque le débat est là car personne aujourd'hui n'ose dire que élection présidentielle bi ñu lay demee mais bu ñu demee deuxième tour taxawu Sénégal ak PASTEF déjà le divorce est consommé je répète encore une fois puisque y eu deux des en tout cas ay membre yoo xamante ne ci biir PASTEF la ñu bokk nee nañu maanaam ànd bi mënatul neex yow nga jàpp ne ànd bi bu neexatul est-ce que jàpp nga ne xëy na euh, am na xeetu trahison bu xew seen diggante. bon trahison man euh, je pense que man je ne parle pas euh, bëgguma wax maanaam utiliser le terme trahison parce que trahison c'est un pour lourd quoi par rapport donc suñu langue plodée parce que ku taxawu Sénégal donc ànd nañ ànd nañ local yi ànd nañ. législative yi hmm. donc je pense que le terme de trahison day xaw a lourd foofu. qu'est-ce qui se passe. mooy peut-être euh, dañoo jël yoon boo xamante ne moom dañoo dem ba ci biir parce que ànd boo gis dafa am lu koy lal. Hmm. peut ñoom dañoo dem ba ci biir jël yoon boo xamante ne peut-être méngoowul ak l'idéologie. dem wuyu ji dialogue bi. waaw dem wuyu ji dialogue bi parce que boo xoolee premier problème bu njëkk am mooy c'est la question de dialogue bu amoon. bi Yewwi Askan Wi naan du dem parce que c' était la coalition Yewwi Askan Wi bien sûr ce n' était pas tout simplement Pastef c' la coalition Yewwi Askan Wi Yewwi Askan Wi nee na moom dem dialogue ji Ousmane Sonko mu ngi lay man je ne dialogue pas avec un pistolet sur la tempe hmm. donc il faut ngeen tegal ma les conditions alors aujourd'hui Ousmane Sonko dialogue-t-il selon vous non dialogue amul si jamono yi toll nii d' même si Khalifa Sall nee na am na ñuy waxtaan ci suuf c'est-à-dire am na di dialogue sous-marin comme ni ñu koy waxee est-ce que vous confirmez est-ce que vous pensez que peut-être Ousmane Sonko mën na nekk ci suuf di dialoguer li waral xëy na ñu gis la libération de beaucoup de tenues politiques. libération yi xam nga Khalifa Sall maa koy déglu mu ne par exemple peut-être am na lu nekk ci biir am na lu. ñuy dialoguer na lu nekk ci suuf man je pense que rien li xew mooy en réalité mooy le président la République Macky Sall. Hmm. dafa taw à un certain mu bëgg a transformer un débat bi nga xamante ne c'était une question de report des élections à un débat de libération des détenus politiques c'est-à-dire maanaam il veut transformer le débat à un autre débat c'est-à-dire y a un problème qui est là problème bi mooy lan le président de la République dafa reporter les élections présidentielles hmm. mu doon une violation euh, flagrante de la constitution sénégalaise mu am pression bi nga xamante ne c'est au niveau euh, international mu ñu teg ko pression la société civile sénégalaise teg ko pression l'opposition sénégalaise teg ko naan ko teg ko pression pour mu organiser le plus rapidement possible les élections mm. euh, CEDEAO teg ko pression pour organiser le plus rapidement possible les élections en mm. plus également l'ONU léegi nag dafa am pression bi nga xamante médiatique bi nga xamante dañu koo teg le président de la République léegi nag mu changer le débat médiatique il a créé ce qu'on appelle la libération et la loi d'amnistie mm. au lieu par exemple ñu débattre aujourd'hui sur le report des élections a pousser à ce que alors qu'il y a un débat beaucoup plus important moo ñu organiser les élections pour en respectant la calendrier républicain mais également un débat beaucoup plus important le fait que le président de la République Macky Sall def na fi lu mu lu mës a am ci Sénégal. Hmm. mu reporter l' élection présidentielle de deux mille. Euh, de de de deux mille vingt quatre d' accord loolu loolu am na solo donc jàpp nga ne ci ci gàttal daal Macky Sall dafa bëggoon euh, maanaam. suul le débat euh, bi nga xamante sur le rapport de l'élection présidentielle moom moo tax mu la libération de ces détenus mais aussi encore une fois et surtout la loi sur l'amnistie parlant de cette loi euh, sur l'amnistie vous êtes en formation au centre de formation judiciaire vous vous connaissez en ces questions mm. quand on parle de loi d'amnistie aujourd'hui qui en profite de cette loi d'amnistie selon vous peut-être maanaam ñëpp nañ ci profité parce que par quand on parle dañuy amnistier képp koo xamante ne maanaam bokk nga ci fee c'est-à-dire on eh amnistie hmm. par exemple tey eh, li xewoon depuis le mois de mars ba jamono yi toll nii non seulement dañuy amnistier maanaam les autorités yi nga xamante ne dañ doon joxe des ordres ba ñuy rëy maanaam les manifestants dans les rues dañuy amnistier également les forces de l'ordre mais également dañuy amnistier képp koo xamante ne tax nga ci c'est-à-dire loolu mooy loi et je parce que ça du point de vue politique le président de la da ciy bëgg a profité donc pour effacer lépp loo xamante ne peut jàpp na ne tey bu jógee fii tey euh, président de la République bi ko war a wuutu mun na ko créer des problèmes wala mun na koo topp ci loolu. et qu'est-ce que a voir sur ça. Oui, parce que Macky c'est un président de République. mais qu'est-ce qu'il y a à voir sur ce qui s'est passé Sur les, manifestations qu'on a eues, qu'est-ce que le président a sur ça président la République, moom moo jiite parce que c'est force de l'ordre yi moom moo ministre moom moo jiite force de l'ordre de sécurité. Hmm. le président de la République moom moo jiite ministre. donc c'est une chaîne. d'accord donc ministre mënu si président ministre mënu ko jàpp D'accord, Mais sortons du cadre politique pour parler encore une fois euh, de choses, euh, je dirais pas beaucoup plus, plus importantes, mais on est des jeunes, vous et moi, mm. et des autres qui, qui sont en train de nous écouter. Mm. Cette jeunesse aujourd'hui, bien euh, euh, peut-être pas assez instruit, pour, pour ne pas dire pas du tout instruit, mm. l'université fermée. Est-ce que il vous parvient parfois, pour parler et plaider pour ces causes-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des causes beaucoup plus, euh, je dirais pas beaucoup plus importantes, mais des causes aujourd'hui qui sont vraiment, vraiment, vraiment prioritaires par rapport à ce qui est Est-ce qu'il y a parfois des khalat, des plaider sur des causes de l'ouverture, de l'ouverture surtout chez Anta Diop de C'est notre combat légitime. surtout ñi nga xam ne parce que man je suis membre de de la de c'est-à-dire la jeunesse patriotique du Sénégal. Hmm. mais également j'étais le secrétaire général de PASTEF au niveau de l'IGB parce que man j'étais je suis de l'IGB quoi foofu laa hmm. jógee. Hmm. nekk naa fa secrétaire général donc l'ouverture de l'université dafa bokk ci combat yi nga xamante ne JP da koy mëne. da koy mëne da koy revendiquer. partout mais qu'est-ce que exactement lan ngeen di def qu'est-ce que vous avez posé de façon concrète. li posé de façon concrète mooy la mooy que def benn sitting parce que ñu ngi préparé avec euh, l'amicale yi nga xamante peut-être ñoom ñoo nekk euh, dans les maanaam euh, les amicales qui regroupent. Ah, bien sûr euh, le collectif des amicales oui. donc ñuy xool benn sitting la ñuy préparé. Hmm. pour jàpp ko mën a revendiquer. Hmm. def point de presse def déclaration revendiquer l'ouverture de l'université parce que éducation dafa am solo et munoo fermer université nga ubbi les prisons. Hmm. c'est ce que Macky Sall est en train de faire l'université ouvrir les prisons. et c'est le contraire la ñu war a def on doit fermer les prisons ouvrir les universités parce que la place des étudiants n'est pas dans les prisons mais la place des étudiants c'est dans. ah dépendra aussi des étudiants ça dépendra parce qu'on parle de libération des tenus politiques oui mais euh, des des peut pas permettre dans ce Sénégal des jeunes di yàq ay mbiru jàmbur yoo xamante ni ça n'a absolument rien à voir avec les manifestations ça aussi il faut être clair là-dessus. waaw loolu loolu man je suis pas d'accord man je hmm. il nga comprendre d'abord lan mooy et selon la lan moo waral loolu. man je pense la cause fondamentale. Hmm. bi nga xamante ne peut-être am ne parle pas du président de la République s'il vous plaît. non je ne parle pas du président de la République. mais président de la République également mënoo je suis pas de le défendre mais à chaque fois on tire sur le président. mais am na yoo xamante il faut que ñun tamit ñuy ñuy ñuy ñuy mettre en cause suñu bopp en quelque sorte. parce parce que président lépp loo xamante peut-être moom moo jiite les autorités yi nga xamante peut-être ñoom ñoo fa nekk. donc mais bu fekkee loolu aussi de l'autre côté de l'autre côté il y a des gens qui vont dire que c'est Ousmane Sonko qui appelle à l'insurrection c'est Ousmane Sonko qui appelle justement à aller à, faire des manifestations entre autres mm. c'est pourquoi le débat ne peut pas avancer en quelque sorte mais ñun ci suñu en tant que jeunes c'est parce que man je m'y vois là-dessus je suis mm. jeune comme vous entre autres mais en tant que jeune ñun ci suñu bopp est-ce que le droit mm. de manifester mm. nous donne-t-il le droit de casser et de caillasser les biens d'autrui oui droit de manifester maanaam man wax naa ko léegi sama njëlbeen li wax c'est-à-dire nee naa la maanaam manifestation di manifester di saccager man je ne suis pas je ne suis pas pour mais nag problème bi mooy il faut nga maanaam origine sagacement bi il faut parfois peut-être maanaam nga touché ko également. Hmm. parce que boo xoolee problème université bi moom man j'étais à l'université man foofu la ma fekk. mais problème bi mu amee maanaam ñi déclenché le conflit ce n'était pas les étudiants de Pastef il faut ñu comprendre loolu d'abord maanaam li déclenché conflit parce que à chaque fois bu doon bu doon am projet pour pour le cas d'Ousmane Sonko. Hmm. Euh, le DG euh, du COUD. Hmm. da doon indi maanaam les étudiants maanaam les étudiants républicains je ne pas ñoo leen indi teg leen maanaam si buntu bi naan ku génn manifester dóor leen ko yore ay jaas yore ay machette institut civil comme quelque chose comme ça. Maguette Sène moo leen doon indi jox leen ay ay ay. en tout cas ce sont des étudiants te def nañ ko benn yoon def ko ñaari yoon def ko deux troisième fois kenn sanctionné leen donc y a anguille parce que je pense que suñ ko defoon benn yoon. Hmm. ñu leen. peut-être dañuy wax maanaam ñoom ñoo jël seen coobare bopp dem defi ko mu tax ñu sanctionné d'accord finalement finalement selon vous pour pour faire retour derrière. en hmm. juin selon vous kan moo taal université bi. université bi bon on sait pas koo taal. d'accord xamuñ ko taal question la hmm. toute dernière question bi nga xam foofu la ñuy c'est vrai que foofu la war a jeexalee puisque vous êtes de Kaffrine. Hmm. Pastef Kaffrine mais finalement euh, bon Kaffrine non c'est pas peine perdue on travaille ñu ngi ci terrain bu baax. Hmm. ñu ci terrain bi di liggéey te je pense que liggéey bi ñuy def am na solo parce que man je suis pas euh, dans dans la kii dans dans le département de Kaffrine man je suis de Birkilane. Hmm. plus précisément dans la commune de Keur Bouki. Hmm. mais quand parle de raison de Kaffrine. donc je pense que dans tous les départements de la région de Kaffrine aussi bien dans toutes les communes ci liggéey bu baax hmm. te mu ngi avancé te gis na également résultats yi nga xamante ne peut am nañ ko durant les élections locales hmm. et durant les élections législatives parce que boo xoolee tey durant en 2019 hmm. donc boo xoolee am na avancement en 2019 donc euh, nombre de donc am pense que am na avancement bu baax bi ñu am te je pense que incha allah dinañ ci am firnde bu baax a baax xam ne Pastef au niveau de la région de ah, Kaolack. ah mais mais s'il y a élection 2024 qui sait puisque aujourd'hui le flou reste personne ne sait personne n'ose dire s'il y aura élection en 2024 ou pas en tout cas. pas moi, je ne sais pas. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura élection En tout cas, la norme voudrait euh, que moi, élection Juridiquement, il doit y avoir élection. Juridiquement, mais est-ce que euh, l'occasion oui. l'occasion d'y voir En tout cas, nous, nous euh, pour respecter le calendrier électoral, on euh, peut faire en Mais on verra qu'est-ce qui va se passer dans cette année pour l'élection présidentielle 2024. minutes chrono, il amoon mbégte dalal Ibrahima Diallo njiitalu euh, MCD mouvement de la convergence pour le développement ëllëg ak jàmm